ونجني من شر ساكن البلاد وشر كل والد وما ولد والتكفي شرف من وعيني وكل من قصدني بالعين والتكفني شرف من وعيني وكل من قصدني بالعين ونجني من شر كل سالم وشر كل جاهل وعالم وكل شامت وكل ناطق وكل مارخ وكل تارخ وكل عرسل وكل فادل وكل خير maa ngi sant commission sociale Touba ci kanam bi di leen sant bu baax sant goo xam ne am na tàmbaliment waaye amul fu mu yem ndax ku gis néeg bee ma newoon ñu jële ma fa defaral ma néeg bu mel nii kooku sant rek laa ci am bu baax a baax sant sañ xaadim Amar mi nga xam ne moo jaayante néeg bi ba mel nii tey ku xool néeg bi xam na tubaarfakal macha allah néeg la ndax ku nekkoon ci néeg sàkket bu daan taw ngay jàppandu fanaani sa njaboot di toog ci kaw lal bi ñi nga uuf leen ñi nga jóg yee leen ñu jóg taxaw bu la génnee ci loolu dugale ci lii da sant yàlla bu baax a baax di sant Touba ci kanam na dëgg yàlla taxawaay bi rafet na trop. ndax lii ñu ma defal nekkul na man kese lañ ko defal dañ ko defal ay doomu aadama yu bari te njëkkewuñ ko ci man te buñ ko mujjee ci man seen liggéey bi nag yàlla na jëm kanam di sant sëñ Murtala yi bu baax a baax a baax ndax ginnaaw yàlla moom buñ amee lii moom la ndax jaboot moom amul ku dul ku ko jàppale te ñun ku ñu jàppale rek lañ bëgg te jàppale nañ ñu seen jàppale gi jàppale wuñ ñu ngir danoo jàppale seen i mbokk wala seen i xawaar seen am daay danoo seet kuy julli rek te yelloo ndimbal li ñu defal la kon na maa ngi leen di sant bu baax a baax di am contentement sama xol dafa sedd ba xaw ma li may wax. yelloo sant yàlla di ñaan yàlla liggéey bi gën a jëm ca kanam tur daal wuyu na borom Tuubaa ca kanam daal ca kanam rek. وكن معيني على سيتاني ونفسي والخلق مدى الأسمان ولي في الدارين كن ماسا وفي مالي لا تسل ملازا وسفيني خلبا وخلبا ولي ترخية وغبا وكن ولي في الحياة ولدا موت وفي القبر وفي الأجر قدا ولا تصلي على في سهامها وافسا واجبا وراضيا وجاسبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومنفا بكل من ينفعني وبالتفاق وبسلك المسالك الخلازي ولتكفني عن جملة المعازم وبسلك رب تاريخ الأولياء النجباء المخلصين الأصياب وأولني سعادة رسورا سخاوة من بهدها أو دررا والتبت المبلغ في فؤادي حب خير الخلق في التمادي ولتثبت حبك في فؤادي حب خير الخلق في التمادي وحب علي وصحبه ñaan ñoo ñoo ñoo ñoo loolu sant yàlla sant yonent sant Sëñ Tuubaa sant maam sax di leen sant bu baax a baax a taxawaay yu rafet na lool wax dëgg yàlla ma ji mu fee raw wax dëgg yàlla ndax ni ma defal nii ba ma toog fii di ko wax ak yéen ñu ngeen di ko dégg ah ak cant la boog am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ndax yaakaaroon naa wax dëgg dinaa du ndax doona tuma gone te ku dool doon si juróom-ñetti fukki at yu manqué doona too gone te ci néegi ñax laa dëkk rek ak néegi sàkket kon su yàlla defalee seen tubaab mu baax ma yéeru ci ginnaawam defal ma lii ak waa këram sant rek laa ci wax def sant rek di ñaan saa borom yàlla nag ah, moo moom doole ma ne guddal fan yi doole wér gi te yokk xewal yu baax a baax a baax a baax sëñ Abdou moo moom sëñ Abdou Fatah moom sëñ Fallou ah ñoo ngi sant bu baax te ñaan saa borom yàlla yokk fan yi bu baax a baax a baax guddal fan yi sàmm la sàmm sang njaboot ñoor yi kër gi ñëwul ci àll bi njaboot rek moo la wér moo ak ñaan lii nga ma defal nag gis naa ko yàlla gis na ko yonent gis na ko Sëriñ Tuubaa mi mën a fay nag yàlla na ma yàlla na la fayal yàlla na la fayal sant bu baax a baax anu mata xayril wa farijan jamiihum jamiihan yaa ali warwa baari sumaa fi kullum wa najim wa tubi wa xfir lahum وجلني يا ربي من أعظم النبات إنك عاس ونصيبا في التمام